te saa su ñëwee nag dina dajeeg moom waaye su paree dina dajeeg seen magistrat parce que dafa am ay magistrat Macky Sall nag magistrat APR ñii ma wax nii ñooy ñi nga xam ne tey ñooy xalaatal Macky Sall ñoom ñëpp nag dañoo bokk ay intérêt kii ñu wax Tony sax mun nañu am njort nii am na loo xam ne bonne foi la ci moom wala jàppoon na ni moo gën waaye may wax ni principal problème Sénégal tey mu nga jóge ci ni ñuy tuddee France